bu ñu jógee rassemblement bii ñuy dëgmal incha allah vendredi 12 mai 2023 fële ca place de la nation bi nga xamante ni am na symbolique donc ca place de la nation boobu ci la ñuy lancer démarrage wu plan d'action wu force vive du Sénégal bi nga xamante ni dina tàmbali ay activités ay manifestation ay mots yu fasantiko yi nga xamante ni. ñu ngi woo peuple bi pour que mu déglu saay su ne ak jamono ju ne li mu laaj ci ay activité incha allah F24 dina ko amal te dina ko fësal pour que Sénégal yépp àndi ci pour que ñu tabax benn force comme ni ko turam ni muy wuyoo turam force 24 benn force citoyenne bi nga xamante ni li koy lal rek mooy xeex pour que dëgg pour que euh, jàmm sax ci Sénégal waaye jàmm ji nga xamante ni day lalu ci dëgg